الحب اللي عمره ما يشمت asalaamaaleykum mbokki déglukat yi seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall moo dellu siwaat ak yéen ci sunu émission kàddu gu sell gi te di leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di dellu di sant yàlla sunu boroom ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist
آه asalaamaaleykum mbokki auditeurs yi ñuy déglu fii ci sunu programme sunu émission bi ñu dippee kàddu gu sell gi seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall moo dellu siwaat ak yéen ci sunu émission bi may tàmbalee émission bi ay nuyoo di nuyu mbokki auditeurs yépp di nuyu ñépp ñi yeewoo fii ci biir Sénégal ak ñi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu bitim réew ku ci nekk ci turam ak santam di sant yàlla sunu borom di sant jëmm ju sell jooju di Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ mi nga xam ne moo ñu may ñu tal ko ba teew fii tey di ñaan yàlla sunu borom ci barke xel mu sell mi yàlla na ubbi sunu xol ubbi sunuy xel ba ñu nangu kàddu yi mu tàbbi ci sunu xol doon ay ngëneel ndaxte kàddi kàddu aji sax ji la yàlla sunu borom. ñun ñi nga xam ne ñooy ay jaamam te bés danañ taxaw ci péncam bu boobaa li ñu liggéey fii lañ fay fekk kon yal nañu dimbale ba nga xam ne li mu ñu jàngal ci kàddoom danañ koy jëfee bu ëllëgee bu ñu teewee ci kanamam mu fay ñu ko mbokki auditeurs yi dañuy wéy di ubbi téere bu sell bi di ci jàng tey jii nag sama waxtaan dama ko bëgg a jëmale ci waxambaane yi dama ko bëgg a jëmale ci ñi nga xam ne boo xoolee Sénégal ñoom ñooy ñi nga xam ne seen lim moo fi ëpp saytu nañu dëkk bi at yi weesu dem nañ ci gox-goxaan yi bi ñu defee li nga xam ne moom la nguur gi def ba wax ñu ñaata doomu aadama ñoo yeewoo fii ci biir Sénégal wax nañ ñu itam nañu ndaw yi góor ak jigéen ñoom ñoo fi ëpp yàlla sunu boroom nag bu mayee dëkk mu bari ay ndaw kon may na ko loo xam ne lu am solo la may na ko loo xam ne moo ëpp njariñ pétrole may na ko loo xam ne moo ëpp njariñ wurus may na ko loo xam ne moo ëpp njariñ jamaa ndaxte boo amee ay ndaw ci sa dëkk ah kon sa ëllëgu dëkk mën na baax ndaxte ñoom ñoom ñooy defar ëllëgu dëkk bi yàlla sunu boroom nag ni ma ko waxee sànq wax na lu bari ak ndaw yi ci téereem bu sell bi tey jii nag dama bëgg indi ci téere bu sell bi baat yi nga xam ne saar yi nga xam ne wax na ko jëmale ko ci ndaw yi dama bëgg a jàng ci kóllëre gu bees gi Nouveau Testament jàng ci xaaj bi nga xam ne moom la ñu jagleel Timothée lan la yàlla sunu borom wax foofu Timothée nag dafa nekkoon ndaw goo xam ne dafa teeloon a gëm juddu ci kër goo xam ne ay maamam ak ay waajuram ñu gëmoon yàlla sunu borom lañu ñu ko déggaloon lañu ñoo xam ne dañu jeexoon takk ci yàlla sunu borom Timothée màggee ci loolu jàng ci loolu nàmp ci loolu jóg di liggéeyal borom bi mu amoon ab kilifa boo xam ne moo doon Paul Paul moomu nag liggéeyoon lu bari ci dund Timothée samp ko defoon ko ab njiit ci ay jàng yu bari mu doon jiite ay mag doon jiite ay góor doon jiite ay jigéen doon jiite ñoo xam ne ñoo ko magoon fuuf wante gëm yàlla moom ak jukkoom yu rafet ak seede bu rafet bi nit ñi daan seede ci moom ak xam bi mu xamoon téere bu sell bi waxu yàlla moo tax mag yooyu nanguloon ko kilifa googu nga xam ne tegoon na ci kawam mu doon seen kilifa yàlla sunu boroom nag di wax ci téere bu sell bi ci xaaj bi nga xam ne moom la ñu jagleel timote bu ñu xoolee timote ñaar xool ci aaya ñaar ci saar fukk ak juróom-ñeent ba ci saar ñaar fukk ak ñaar lii la yàlla sunu borom wax nee na dawal bépp bëgg-bëggu ngune te sóobu ci njub ngëm mbëggeel jàmm ak ñépp ñiy tudd turu borom bi ak xol bu sell foofu yàlla sunu borom di wax ak ndaw yi jël timote teg ko mu doon misaal kon mu mel ne baat yi dañ ko jëmale ci timote jëmale ko ci ñépp ñi nga xam ne ay ndaw lañu ñépp ñi nga xam ne ay waxambaane lañu mu ne foofu dawal bépp bëgg-bëggu ngune te sóobu ci njub ngëm mbëggeel jàmm kon mi ngi soññ foofu ndaw yi yàlla sunu boroom mi ngi soññ ñi nga xam ne ñooy ndaw yi ñi nga xam ne ñooy waxambaane yi mi ngi leen ni soññ ne leen loolu nga xam ne dafa ànd ak seen jamono dee leen ko daw loolu nga xam ne dafa ànd ak seen jamono doo leen ko daw daw leen ko moo tax mu ne dawal bépp bëgg-bëggu ngone ndaxte boo nekkee waxambaane boo tolloo ci yenn at yi dafa am loo xam ne sa jamono dala koy jox dala koy laaj dafa am loo xam ne sa yaram da koy laaj dafa am ay jukko yoo xam ne mën na la dab dafa am yoo xam ne kat da nga koy fekk ci sa kanam te di gis ne ñépp ñi nga ñu bari ñi nga xam ne yéen a tolloo at yéen a tolloo jamono ñi ngi koy dund yàlla sunu borom ne yow mi nga xam ne gëm-gëma te nga doon waxambaane ndax waxambaane day gëm yàlla gone day gëm yàlla nekk gone teewul doo gëm yàlla nekk gone teewul doo déggal yàlla yàlla sunu borom nag ne yow mi nga xam ne ndaw nga te nga gëm ma dawal yooyu nga xam ne dafa bokk say bëgg-bëgg daw ko muy wax fii ak timote ne dawal bépp bëgg-bëggu gone bépp bëgg-bëggu ndaw bépp bëgg-bëggu waxambaane du mooyul yu mel noonu ndaxte da nga gëm ci yàlla kon boo gëmee yàlla doone kat jamonoo ko laaj kon danaa ko def déedéet donte sax ndaw nga boo gëmee yàlla boo bëggee nekkal yàlla faw nga dummooyu yooyu nga xam ne sa jamono da ko laaj wala boog mi ngi ci sa biir jamono ngay gis ñu koy dund am na yoo xam ne jarul ma koy lim wante mi ngi fii ci biir dëkk bi Sénégal boo demee beneen dëkk fekk ko fa muy fii ci Afrique muy ci dëkku tubaab yi ci dëkku chinois yi fépp foo dem ci juróomi continent yi am ci biir àdduna bi foo ci dem fekk ci lu mel noonu jukko yu mel noonu nga xam ne da nga koy fekk ci ndaw yi day fekk seen jamono moo ko laaj yàlla sunu borom ne yow mi nga xam ne ndaw nga yow mi nga xam ne gëm nga ci man dawal bëgg-bëgg yooyu boo dawee bëgg-bëgg yooyu nag wala boog boo ko bëggee daw dafa am loo xam ne danga fa war a sóobu yàlla sunu borom nag ne xaaral ma won la ci yooyu nga xam ne war nga ci sóobu ba mën a dummooyu bëgg-bëgg yu mel noonu kon mbokki auditeurs yi ñu déglu tuuti cant balaa ñuy ñëw ci ñaareelu xaaju waxtaan wi
نقدم عفنا بتدرى بزيرة غريرة كيل جدول أدوناي وملך גדול על כל אלוהים להודות ולהלל ולשבח את בורי לשם יעוד קודשה ברכו שכינתה בדחילו רחם על ידי תמיד ונעלם בשם כל ישראל הריני מקשר עצמי באמירת עשר המזמורים אלו לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפה קדושים אשר בארץ נאמר ובפרט לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחל נובח מכל חוכמה רבנו נחמן בן פגר זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן נפתם לדוד שומרני אל כי חסיתי בה אמרת לאדוני, אדוני אתה, טובתי בלעליך. לקדושים אשר בארץ המה, אדירים כל חפציבם. ירבו עצבותם, החרמם, בלסית מסכן מדם, ובלסה את שמותם.
jërëjëf mbokki auditeurs yi kon ñuy wéy di jàng li nga xam ne moom la ñu yàlla sunu borom wax jagleel ko ndaw yi kon bi mu ne dawal bépp bëgg-bëggu gune bëgg-bëggu ndaw dafay wone foofu bunt bi nga xam ne wala pexe yi nga xam ne kooku nga xam ne ab ndaw la mën na fa jaar ngir mën a dummóoyu bëgg-bëggu jamonoom nee na dawal bépp bëgg-bëggu ndaw te sóobu ci jub ngëm mbëggeel jàmm ak ñépp ñiy tudd turu borom bi ak xol bu sell nee na ndaw bi nga xam ne dafa bëgg dummóoyu bëgg-bëggu jamonoom te bëgg-bëggu yooyu dëppoowul ak bëgg-bëggu yàlla sunu borom nee na kooku pexe mi daal mooy mu sóobu ci li nga xam ne lu jub la mu sóobu ci ngëm mu sóobu ci mbëggeel mu sóobu ci jàmm mu yokk ci ne nag ak ñépp ñiy tudd turu borom bi ak xol bu sell yàlla sunu borom mi ngi ñuy jàngal nañu ndaw bi nga xam ne bëgg na dummóoyu bëgg-bëggu jamonoom pexe bi nga xam ne moom la koy wax pexe mi nga xam ne moom la ko jox mooy nay faral di toog wala boog di ànd ak ñi nga xam ne bëgg nañu dummóoyu bëgg-bëggu jamono loolu lu am solo la loolu lu am solo la bu dee yow da nga gëm yàlla te am ndaw nga bu dee yow yaa ngi xëccu yaa ngi def sa kimtalaayu kàttan kat ne man dama bëgg a nekkal yàlla ndaw laa wante loolu teewul duma gëm yàlla nee na del faral di dem ci bërëb yooyu nga xam ne ñi gëm ñi nga xam ne ay ndaw la ñu ne yow fa la ñuy nekk del ànd ak ñu mel noonu del dem ci bërëb yu mel noonu bu boobaa da nga dummóoyu bëgg-bëggu àdduna bëgg-bëggu sa jamono muy wax bu am solo nee na booy ànd ak ñu mel noonu nag na nga tënku ci lu jub na nga tënku ci ngëm na nga tënku ci mbëggeel na nga tënku ci jàmm yàlla sunu boroom di soññ ndaw yi naan leen teg leen seen tànk foofu dummóoyu leen li nga xam ne seen jamono da ko laaj te ngeen teg seen tànk te ngeen sóobu ci njub ci ngëm ci mbëggeel ci jàmm te ngeen ànd ceeg ñépp ñiy tudd sama tur ak xol bu sell loolu lu am solo la dama leen doon wax sànq ne leen ndaw teewul gëm yàlla déedéet yàlla sunu borom sax dañuy jàngal ne sopp na ndaw yi nga xam ne dañ ko gëm sopp ne ndaw yi nga xam ne dañu jël seen doole dañu nekk ci seen diggu doole ba pare kat dogu ne yàlla képp lañuy nekkal yàlla sunu borom nee na sopp na ndaw yu mel noonu ndaxte bu ñu xoolee sax ci téere bu sell bi dafa ñuy wax ci kóllëre gu njëkk ji ñuy wax ancien testament te suleymaan wax foofu yàlla sunu boroom wax jaarale ko ci suleymaan mi ngi wax foofu ci xaaj bi ñu tuddee ecclésiaste ci aaya fukk ak benn saar juróom-ñeent ba ci saar fukk nee na yow ndaw wi toppal sa jamono toppal sa bëgg-bëgg defal lépp li nga xam ne moom nga bëgg wante na nga xam ne yàlla sunu borom dana layoob yow yàlla moo wax loolu nee na yow mi nga xam ne ndaw nga yow mi nga xam ne ndaw nga toppal sa bëgg-bëgg defal lépp li nga xam ne moom la la sa xol laaj wante na nga xam ne danaa layoog yow kon yàlla day layoog ndaw yi moo tax mu wax ak ndaw yi soññ leen bu ñu xoolee ci ecclésiaste ci aaya fukk ak ñaar ñu xool ci saar benn ba ci saar ñett mi ngi waxaat foofu ak ndaw yi nee na bi nga nekkee ndaw fàttaliku ma man yàlla sa borom nang may fàttaliku nang may wéetal balaa màgget di yegsi balaa ngay tàmbali naan kat lii ma daan def tàyyi naa ci waaw yàlla sunu borom moo wax loolu ndaw yi nee na leen bi nga nekkee ndaw fàttaliku ma dee ma wéetal balaa màgget di ñëw nga naan kat li ma daan def tàyyi naa ci yàlla sunu borom di wéy di ñu wax foofu naan naw na ndaw yi nga xam ne ñi ngi nekk ci seen diggu doole dogu di ko wéetal di ko déggal di ko topp yàlla sunu borom di fàttale ndawu Sénégal di fàttale ndawu àdduna sépp ne leen kat bés danaa layoo ak yéen te li ëpp solo li ëpp solo ci dëkk bi ay ndaw lañu kon nañu bàyyi xel ne bés dana layoo ak yàlla sunu borom dafa am benn seetlu bu ñu def fii ci Sénégal xëy na sax seetlu boobu tamit itam am na ñu ko def ci yeneen i réew dañu seetlu ne ndaw yi génn àdduna moo gën a bari am na ay jamono fii ñuy seetlu ne ndaw yi dañuy génn àdduna da ngay toog rek dégg ne ah moom de fukki at ak juróom la amoon da doon football ci terrain bi rek daanu yàlla sunu borom moom ko fa ñu ne la ah moom de ñaar fukki at la amoon dafa doon tukki de rek accidenté yàlla sunu borom moom ko fa ñu naan la moom kat ñaar fukki at ak juróom la amoon dafa toog bopp bi doon métti rek ci suba la tàmbali ngoon yàlla sunu borom moom ko yu mel noonu ñu ngi koy dégg lu bari ci sunu dëkk ñu ngi koy dégg ci yeneen i dëkk boo yeggee ci yàlla sa borom loo fay yóbbu moo tax mu ñuy yee yërmandeem tax mu ñuy yee du ñu soññ di yee ndaw yi di leen soññ naan leen daw leen bëgg-bëggu seen jamono te ngeen sóobu ci li ma bëgg te ngeen sóobu ci li ma bëgg yàlla sunu borom mi ngi wax ak ndaw yi yàlla sunu borom mi ngi wax ak waxambaane yi mi ngi leen di fàttali benn danaa la yoog yéen ñaar sóobu leen ci li ma bëgg kon mbokki auditeurs yi ñu déglu tuuti cant balaa ñuy ñëw ci ñetteelu xaaj bi ñuy tëjee waxtaanu tey wi
אדוני מנתחים כי בחוסי אתה תומך כל גלים נפלו לי בנגב, אף נחלת שפר עליי. אברך את אדוני אשר יצאני, אף לילות יסרוני חניותיי, שיביתי אדוני לנדי תמיד, כי מימיני בא למות. לכן שמח ליבי, ויגל כבודי, אף בשרי ישכון לבטח. כי לא תעזור נפשי לישון, לא תיתן חסידך לראות שחת. תודיעני אור החיים, סוף הצמחות את פניך נעימות, בימינך נצלח. לדוד משכיל, אשרי נשוי פשע כנשוי חטא, אשרי אדם לא יחשוב אדוני לא עוון, ואין ברוחו רמיה. נחרשתי, בנו עצמי בשאגתי כל היום. כי יומם ולילה תכפד עלי ידך, נהפך לשדי, בחרבון הקיץ. סייד. חטאתי הודיעך ועווני לא כיסיתי אמרתי הודע לפשעי לאדוני ואתה נשאת עוון חטאתי סלע
kon jërëjëf mbokki auditeurs yi ñuy déglu rawatina ndaw yi ñuy déglu ñuy wéy di jàng li nga xam ne moom la ñu yàlla sunu borom wax ci téereem bu sell bi jëmale ko ci ndaw yi kon ci kóllëre gu bees gi ci nouveau testament bi mu soññee ndaw yi ne leen dummóoyu leen bëgg-bëggu seen jamono te ngeen ànd ak ñi nga xam ne dañuy def lu baax te ngeen sóobu ci lu baax mi ngi ci yokk ne kiy tudd turu borom bi na daw lu bon kiy tudd sama tur na daw lu bon bari na ndaw yoo xam ne ñi ngi tudd turu yàlla sunu borom wante ñi ngi nekk ci li nga xam ne dëppoowul ak li yàlla sunu borom namm ci ñoom namm ci ñiy tudd turam dafa am ñaar ñoo xam ne ànduñu yàlla sunu borom a ngi ñu koy wax nee na am na ñaar yoo xam ne àndul ngay tudd turam te dëkk ci lu bon ñaar yooyu àndul déedéet booy tudd turam kay na nga dëkk ci lu baax mu naan ndaw yi bu leen yem rek ci tudd sama tur weesu leen tudd sama tur nooy we noo leen di weesoo tudd sama tur dëkk leen ci lu baax te du mooyu lu bon dëkk leen ci lu baax yàlla yàlla rek doyul da ngay jëf da ngay dëkk ci lu baax yàlla sunu borom nee na képp ki nga xam ne yaa ngi tudd sama tur na nga moytu lu bon di tudd turu yàlla sax di tudd tudd aji sax ji ki nga xam ne ndaw yépp bés danañ taxaw ci kanamam layoog moom di tudd turam ba pare dëkk ci lu bon loolu day gën a wàccee ay mbugal ci sa dund te danga ko gis fii ci àdduna bu ëllëgee itam danga ko gis moo tax yàlla sunu borom di soññ ndaw yi ci téereem bu sell bi ci biibal bi mi ngi leen di wax naan leen bu leen topp bëgg-bëggu ndaw bu leen topp bëgg-bëggu seen jamono soobu leen ci lu baax te kuy tudd sama tur na bàyyi lu bon na daw lu bon na moytu lu bon di leen wax naan leen dee leen soobu ci lu baax dee leen soobu ci lu jub dee leen soobu ci lu ci ngëm dee leen soobu ci mbëggeel dee leen soobu ci jàmm jàmm ay yu bari yu am sunu dëkk am ci yeneen yi réew am ci àdduna sépp boo koy xool ndaw yee ci gën a xarañ yàlla sunu borom ne déedéet dee leen daw lu mel noonu dee leen woote jàmm yéen ndaw yi am ngeen doole tal ngeen ko am ngeen fit dee leen woote jàmm dee leen wax jàmm dee leen jëf jàmm yàlla sunu borom di woo ndaw yi ci jàmm yàlla sunu borom di soññ ndaw yi ci jàmm ci téeréem bu sell bi ci kàddoom gu sell gi ci bible bi mi ngi soññ ndaw yi ne leen dee leen dëkk ci jàmm dee leen dëkk ci mbëggeel dee leen bëggante dee leen xool ñeneen ñi ak bëtu yërmande dee leen yërëm ñi leen féete kaw dee leen yërëm ñi nga xam ne am nañu karaw yu weex dee leen may cër dee leen yéwén ci nit ñu mel noonu kon yal nañu yàlla sunu borom dimbale ba jukko yooyu nga xam ne naw na ko namm na ko ci ndaw yi mu fekk ko ci ndawu Sénégal ndaw yépp ñi nga xam ne ñi ngi yeewoo Sénégal yal na leen yàlla sunu borom dimbale yal na leen sol jukko yooyu nga xam ne naw na ko jukko yooyu nga xam ne Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist nee na buñ ko fekkee ci yow texe ga jukko yooyu nga xam ne nee na jëmm joo xam ne yaa ngi def sa kémtalaayu kàttan ngir ñu fekk ko ci yow yàlla sunu borom dana la dimbale ngir jukko yooyu ñu fekk ko ci yow ku sabablu rek yàlla sunu borom dimbale la ku jéem rek yàlla sunu borom dimbale la ku dogu rek yàlla sunu borom dimbale la kon yàlla na ngeen dogu yéen ndawu Sénégal dogu ci dummóoyu bëgg-bëggu seen jamono bëgg-bëggu àdduna yàlla nañ leen di fekk ci lu baax yàlla na ngeen di dummóoyu lu bon képp koo xam ne nag yaa ngi teg sa tànk foofu yàlla sunu borom nee na danaa la barkeel te ni mu ko waxee woon sànq jaarale ko ci Suleymaan nee na ndaw bu nekk danaa la yoog yow te na nga farlu balaa bijjaaw di yegsi ba nga naan kat lii kat bëggatuma ko lii kat tayyi naa ci déedéet yàlla sunu borom nee na farlul nee na na nga farlu ba loolu du la dab na nga nekk ndaw nekk ci lu baax na nga nekk waxambaane nekk ci lu baax na nga nekk muskàllaf nekk ci lu baax na nga nekk màgget nekk ci lu baax kon yàlla nañu jëmm ju sell jooju nga xam ne mooy defar jukko yi mooy soppi xol yi di Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist yàlla na dimbale ndawu Sénégal ba soppi xol yi defar jukko yi ba fu ñu tuddee ndawu Sénégal seede bi doon benn ñu nekkat ñu gëm yàlla lañu ñu nekkal yàlla lañu yal na leen yàlla sunu borom barkeel yéen mbokki auditeurs yi yal na barkeel ndawu Sénégal yal na leen sol ay jukko yu rafet jukko yu baax yal na yàlla sunu borom jàppale sunu ndaw réew yal na leen yi wommat yal na leen yi tette ba ëllëg ëllëgu dëkk bi doon ëllëg goo xam ne ëllëg gu baax la ma koy ñaan ci darajey Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist jërëjëf mbokki auditeurs yi ñu doon déglu seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall moo leen doon defal sunu émission kàddu gu sell gi te di leen fàttali nag sunu numéro de téléphone bi nga xam ne mën ngeen ñu ci woo boo leen bëggee jokkoonteeg ñun boo leen bëggee am téere bu sell bi mën ngeen ñu woo ci 77 0 74 35 35 77 0 74 35 35 wasalaam mbokki déglukat yi fii lañuy yemale sunu émission maa ngi leen di sant ci déglu bi te di leen fàttale sunu téléphone di 77 074 35 35 yàlla na yàlla sunu boroom wéy di leen barkeel tey wàcce ay yiwam ci seen kaw ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ mën ngeen jokkoo ak ñun ci 77 074 35 35